bu dee dossier bii ñuy wax nii le dossier judiciaire Ousmane Sonko c'est un allié parce que ñoo bokk la coalition Yewwi Askan Wi donc mënuñu ko yéene lu dul jàmm bu ñu sañoon étape bi da koy romb ñu nekk ci leneen mais gis nga dossier boobu man toujours damay wax ni Macky Sall daf ci daf ci investir ba pare investiru ci. moom jàpp na ni moom bu bu Ousmane Sonko jàllee rek c'est une grosse perte pour lui mais quoi qu'on dise. ñun ñëpp xam nañ ni fii ci Sénégal bu doon démocratie bi niñ ko fi kañee di ko fi bàkkee nekk na fi noonu kon détails yi ñuy dégg yëpp du am xam nga om d'état dangay am benn benn grandeur booy tax duñ la dégg ci yenn détails yi dañ la fi jox ay ay Abdou juuf di la fi cité Abdoulaye Wade di la fi cité Senghor ñu bi ñu amoon avec l'opposition mais koo xam ne yow dañ la jox nguur nga ni cëpp am comme principal objectif réduire l'opposition à sa plus simple expression mais loolu jàpp naa ne stratégie gënu ko gënu ko manqué élégance gënu ko ñaaw ci rapport boo xam ni yow en tant que chef d'État moom nga war a am avec l'opposition Ousmane Sonko nag tey moom la mais li wóor mooy affaire njëkkewu ko fi woon mhm. gis nañu fi mu jaaral Karim Wade fi mu jaaralee xalifa Sall foofu lay jaarale Ousmane Sonko ci les Sénégalais laissent faire également bu ci paree foofu lay jaarale waat feneen rek te dossier bii day wane ni on ne peut pas rêver d'une élection transparente ndax concernant lu dul élection xam nga man bu may bu may analyser la situation dama naan xam nga dangay dégg ñun l' agent judiciaire de l' donc il y a des gens qui agissent au nom de l' état mais nañ wax en quoi ele Ousmane Sonko bokk ci élection yi nan la menacer l'état ba mu jaral leen va et yi fu ñu romb ñu dóor leen yëkkati ba suuf dóor ci yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf duñu nangu ñu yëkkatiwaat encore dugalaat recours à n'en pas finir mais nañu wax c'est quoi la menace pour que Ousmane Sonko bokkee ci élection ñu ni noonu àdduna day tukki wala leneen man dama jàpp ne dañu waroon ouvrir le jeu à tout le monde te bàyyi Sénégalais yi nag ak seeni responsabilité ñoom ñu exercer ko tranquillement mais boo ci toppee suba ngoon gu guddeeg bëccëg recours yi dul jeex dañu jàpp ni y' a roche et effectivement y' a anguille roche.